fi daxali laskarin yi nu sooyu gis naa minum loxoom fi daaru salaam téere borom gaawaan ba jox na koy salaam keroog la way wasilatu rubooyi fi daxali laskarin yi nu sooyi keroog la way wasilatu rubooyi ak asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Cheikh Mourtada Diop di liggéey bi ci daara Cheikh Mourtada Al Azhar jiite primaire bi ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal ci turu suñu maam Mor Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Mourtada te jiite liggéey bi yëpp ginnaawam ak ci turu sëñ Saliou mi nga xam ne mooy directeur général Kër Assane am na bisimilah ñu jàll si lal baa nga woon gaawaan ba sunu maam anta faatoo ñu teg ko coomu mel ni jant yow bu ko deqale fa ma robaale koog lal booba suweenta déglu ma wax laati ba mu bawal mbar wali ci waxi mbar lii ma wax du demale dalu na Brésil jaari Furuba jaari Gabon bawoona foofay Kutuba ok fii moom mooy jumaa ji nga xam ne eh, ci si amul Murtala lañ ko tabaxoon waaye li histoire bi mooy dañuy wax ne sëriñ bi bi mu fiy jógee di dem gànnaar dafay jullee woon takkusaan waaw sëriñ tuubaa ci boppam doon de sax ci kanam foofu du ngeen xam naa du ko sori mooy këru boppam gi foofu sëñ bi dëkkoon waaye dañuy wax ne jullikaay la boo xam ne sëñ bi dafay julli woon loolu waraloon sàmm bërëb bi sëñ bi doon sàmm bërëb bi ko ay jamono ginnaaw bi la joxoon naan Omar Ngalla Ndiaye eh, avocat international la naa daaw la yàlla dogal moom faatoo Makka moom moo ko njëkkoon a tabax yeesaloon ko ci ay suñ Mamadou Lamine Baara sax jotoon na ko fee indi moom julli fi ginnaaw bi nag euh, sëñ bi ci moom tam moo daan jiite jumaa ji moo daan jiite ajjuma bu jot moom suñ Murtala bu fi nekkee ginnaaw bi la suñ Maam Moor nag la jox ndigal suñ Fàllu suñ Fàllu Galas Maane mu mu yeesalaat ko nii ni ko gisee nii ci ci suñ Maam moo joxoon ndigal suñ Fàllu Galas Maane mu tabaxaat ko bu mel nii mu mel nii jumaa joo xam ne euh, mën nañ bërëb la bu sëñ bi jaaroon kon te yoon yi moom baax la ci fu sëñ bi jaaroon fa nekk nekk barab bu barkeelu waaw loolu xam loolu lañ ci jot a jàpp waaw bu dee bâtiment yi yi féete yi ko féete càmmoñ yëpp ci primaire bi la bokk ay classe la yoo xam ne eh, classe yi classe yi eh, primaire bi la classe yi yëpp xëy na semb biñ sembu fii bi suñ Maam Mor sembu moo waraloon classe yi côté boobu la nekkoon ñu toxalandiku nii defarandi ko ni nga xam ne mën naa provisoirement la daal dañ ko fay defal ni ngir xaar bu liggéey bi yeggee ñu tabaxaat yeneen classe liggéey université bi moo tax ñu toxaloon de yi nekk waaye lii moom mooy ni ngeen koy déggee projet bi suñ Maam Mor def muy université Al Azhar bi nga xam ne moom la def mu muy jaamatu Cheikh Ahmadou Bamba xay na sax mi ngi am ci yenn am benn faculté bu ñu ci ubbi ren xam ci biir am na ci classe yoo xam ne daanaka materiel bi war a toog rek moo ci des waaye biir gi pare na ñaari bâtiment yi biir gi pour ñu mën cee jàng. Euh, sëñ bi ci boppam ci xalaatam moo waxoon ne comme ay xale dañ fi daje dañoo war a fexe ba ku ci sibur wala dara jot ñu mën a am fu ñu ko kiyee bala ñu koo yóbbu bi mu waxee Sorong docteur Sorong mu daal di jokkoo daara ji daal ne léegi nañ ko indil kenn ci ñun ñu tàggat ku ba nga xam ne dana mën a xàmmee dana mën a kii daal yu njëkk yi ñu war a def soignement yu njëkk yi. su su fekkee ne aajana indi hôpital ñu doog ko yóbbu loolu moo waral kii bi nii waaw ñu def infirmier bi ñu naan Abdou Lahad Ndong moo fi ne sax jànnatu lay liggéeye léegi yàlla dogal na jógeen ndaamaatu ba dem jànnatu hôpital mag boobu liggéey irsan boo bu fi sibbiru rek euh, fii ñu gisee euh, liggéey la boo xam ne ci mag yi taalibe yi ku ñu naan si Cheikh Mariam moom Cheikh suñu Cheikh Mariam Ndiaye xam naa jóge na fi léegi moom ci bi bi sëñ bi nekk moom tam moo jëloon yi bu tabaxal lii sëñ bi ñu jàppalee ko ci liggéey bi waaye ay ay ay ay classe la fi mu doon lañ ko dafa moom baar la moo xam dañ ko fay def léeg-léegi xale dañuy def seen i yëngutu lu mel ne ay seen amee ba yu mel noonu léeg-léegi fii la ñuy daje defe ko ak léeg-léeg bu amee conférence par ngoon bu mel noonu. mbaa bi lañ koy faral di defe waaw daanaka mën nañ ne daal parti bii daal li ma doon dugg ca classe yooyu xëy na parti la fii la jëm beneen classe yële. Hmm. xam naa mujj bi fii lañ koy indi bu soobee am. ba tey eh, yi jàngalekat yi nga xam ne dañoo xaw a sori ñenn ñi ñoo dëkk ci biir. Hmm. waaw benn benn bâtiment bi ñenn jàngalekat yi nga xam ne dañoo dëkk fu xaw a sori. ñoom hmm. ñoo fi dëkk. bu dee lee itam. xam naa yàgg na fi ñëw. mooy direction sénéral bi. dañoo toll ci sànni dañ koy defaraat waaw dañ koy defaraat léegi moo tax daanaka. fi laa leen daan fekk. waaw waaw sëñ Moussa Diop waaw léegi daa mel ne ñu may wax na ñoo dëkk fii fañ dëkkoon léegi foofu lañ defandi ay bureau bu defee ñooñu ñoo nekk fii. xam ne wala junj xam na dégg nga moom leen mooy suñu Cheikh Mariam bu ci jàppale sëñ bi mm. moo doon tabax bâtiment yi bâtiment bi ak ji ak mbaar mi yëpp Njaay waaw ko amoon ba seef ci jàppale sëñ bi waaw sukuru shaakiriina keroog lam nur lisaanul arabi fawqa ñanampoon ca nisaawul arabi keroog la barakatul quraani wal ilmu fawdi xutbu fii diiwaan maa la kër gi nii fii mm. Euh, jamono bi sëñ bi ubbee école bi euh, mille neuf cent soixante quinze euh, waa Azhar dañoo baaxoon dafi indi ay jàngalekat looloo mu tabaxaloon leen kër gi nga xam ne fii lañ naan waaw buñ masaa ñëw fii lañ daan dëkk waaye léegi nag xëy na xam naa ñoom seen bopp xam naa fii itam moom léeg-léeg day xaw a wét moo waraloon ñoom ñu tàmbali bi ñu ci feneen fi ne waaw léegi nag loolu ca ñii bi ñu tàmbalee seen sànce bi après ñu ñëw fi nekkandi fi seen bureau yi léegi fi la nekk xam naa bu ñàkk da ngeen fi jaar ci Sine Saliou waaw soobee yàlla euh, ba tey classe yi ngeen jug ne yee ci biti nii euh, parents day yi nga xam ne ñoo ne ci daara ji ñoom tam ñoo ko tàmbalee seenum yëngu ci ci école bi waaw ñoom ñoo ko fa tàmbalee gul waaw classe yi ci la terminal nekk ba tey comme ni ma waxoon ci euh, sem 2 bi jubluwaay bi fi élèves yi am feesaay bi tax na ñu xaaj ko moom itam muy ñaari kalaas muy góor ak jigéen waaw benn góor ñi benn bi jigéen ñi waaw man ne lii yëpp dañ mel ne taalib yi seen pësteef tax na seen xaaruñu sëñ bi daal ci liggéey bi ñoom itam ñu ngi ciy jéem a jàpp liñ man ndax wan nañ la fee ne la sëñ Cheikh moo doon moo ci doon jàpp wax nañ la fii parents d'élèves ñoo ci góorgóorlu te fii xam nga ne daayira bu nekk Italie ñoom ñoo ci ña waaw te fi lool nag ndax booba waaw am na am na njariñ lool ñii itam seen classe am na njariñ lool na lool dafa am dafa am kii daal ndax mu bëri dañ jàpp na buñ jàngiwul daaw rek jànguñ waaw loolu tax daanaka classe boo ci ñaar la am na ci yoo xam ne sax ñett la

ñool maa ki yéru ko may ko xayru suuli gannaaw ga lañ ko yóbbu fii kabla bisa mu jaay baafale ilaa Grand-Bassam am na fa yetti at lambaa ji riiw ma nattu yaag balaaya ànd ak mboor ma ba mag naa xayru xurooju ruuhi daj naa ko foofa moo du roccu ruuyi gannaaw gi yàlla may ko foofa maxraja waar yu muy jiblu ci daam fa xaraja keroog la nga daaya fa ñoom leneen ñi ñooy ñu gis ko bëri waaye mais daal xaqiir bi ñu def lañ biñ bi ndax nit ñi dañoo xaw a waaw Oustaz Abdou Diouf suñ moom liggéey waaw bisimilah daal seen fii waaw fii moom bureau yi ñoo fi nekk ah, ñoom ñaar ñoom ñoo secrétaire bi ak surveillant bi ñooy jàppale waaye trésorier bi waaw bisimilah jàll si ci jàngalekat yi. ahlan wa sahlan alhamdulilah. xayri xaal nahmadullah eh, azza wa jal alhamdulilah. ismuka ahlan wa sahlan. Cheikh Ala. هم في تلفزيون تلفزيون يا اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا يا اهلا. اهلا. هم جاءوا لزيارة المهد. من زيارة هذا المعهد وهذه المؤسسة العريقة نعم. مؤسسة الأزهر تقوم بدور كبير في, في نشر العلم وتتعاون مع جميع الدول وخاصة مصر نعم. لنشر العلم ونشر الإسلام بمفهومه الوسطي السمح فهذه المؤسسة يعني لها دور كبير في تقوم بدور كبير في نشر العلم وبتربية أولادنا ونطلب من الجميع أن يتعاون مع إدارة المعهد ويرسلوا أبنائهم إلى هذه المؤسسة العريقة لكي يستفادوا من علم العلماء الموجودون هنا والقائمين على إدارة هذا المعهد الحمد لله ما شاء الله waaw moom moom ci waa Azhar yi la bokk yi ñu fi indi day wax ne école bi école la boo xam ne école bu am doole la boo xam ne li jubluwaayam mooy tasaare njàngaleem lislaam ak yar xale yi nga xam ne ñooy jiil bu bees bi nekk ci réew mi mooy mooy génération bi daal yar leen yarub lislaam yar leen yarub diine eh, te loolu tam ñu ngi koy def ci jàppalante ak Azhar ba nekk ca Caire loolu sax moo sabab moom mu nekk fii bin musaada bil Azhar bil Misr naam aw sababu yudikum huna naam naam ma sha Allah al Azhar bi Misr <laughs> bismillah ma ne ko ñoom lay sëñ Mudir sëñ Amadou Samb moom moo nga xam ne mooy jiite daara ji daara asar ji yëpp moom la suñu borom def mu jiite ko ci ndigalu Cheikh Amadou Mourtada waaw di jàppalante ñun fi nekk ay ndongo muy ku yaatu lool nag te yàlla dogal liñ ko dénkit mu am ci ak yaatu te yaatal si ñëpp suñu mbokk di liggéey. lu ko kitaabullaahi bil quraani tooy na keroog ba yokk ba mbayoo waane nee na keroog kaamil Moodu Galaba la boole bi El Azhar muy daara ju nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada radiallahu taala anhu moo ko samp depuis 1974 ni muy dox ak foo xam ne tas na réew mépp Cheikh Mourtada moomu nag mooy najlul xadiimi ji nga xam ne yàlla moom la ko baaxe woon ci diggante 1921 ba 1924 yàlla def mu feeñ jamono ci barab bi ñuy wax ak ci Daaru Alimul Xabiir muy ndaam ci teewaayu ak fekk sëñ ndaam Abdourahmane Lo mi nga xam ne moom itam moom la yàlla baaxe mu sol ko alquran mu teel a mokkal alquran lool doon ne alquran ci sëñ Tuubaa waaye doon ne alquran ci waajuram bu jigéen muy soxna Fatimatu Jóob soxna Fatou mi nga xam ne Cheikh euh, Mad Lamine Diop Dagana nee na ku mënoon alxuraan la te bind na kaamil juróomi kaamil ci loxol boppam kon kooku Sëriñ Tuubaa doon na alxuraan ci Sëriñ Tuubaa waaye Cheikh Murtada waaye doon na koy ci waajuram woowu waaye doylewul loolu daa daal di tasaa jóg laxasaayu ba géej ju ci xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xami lislaam jëlee ko ci Sëriñ Mad Lamine Diop Dagana waaye jëre ko ci it ci sëriñ Habibu Mbakke waaye jëlee ko it ci bitim réew muy gànnaar nga xam ne foofa la nekkoon ne fa bu yàgg jàng fa géeju fa xam-xam waaye bi mu delsee ba mel noonu it mu xam ne liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi mu daan wax ne moom laay jihaade te mooy xam-xam iniw jaahil bi loxo la bu tuxaa jihaad jooja moom kenn waru ko ca mu daal di laxasaayu ngir nag donn loola ci Sëriñ Tuubaa féete magam yi ak rak mbokkam yu baax yépp ci liggéeyal xam-xam mu gis ne it daara yaa ngi fi woon ci fenn fu nekk ñu nga Gédé ñu ngi woon Touba ñu ngi woon Njaaréem di jàngale xam-xam di jàngale alxuraan waaye nag dëppale daara yooyu ak jamono ba ñëpp mën cee joti jigéen ñi mën cee joti gone yi mën cee joti mag ñi mën cee joti loolu dafa laaj ñu dox weneen doxin te moo di sos daara yoo xam ne di dëppoo ak jamono muy école yii kon loolu la Cheikh Mourtada di sosé école yii école bi ci njëkk mooy bii muy da da nekk ci daaru alimul gii ñu nekk place bii ñu nekk tamit nga xam ne fi la sampoon école bi daaru salaam la tudd Cheikh Abdoulaye daaru salaam la ko daan wax ndax mooy daaru salaam athaniya Sëñ Tuubaa moo sanc woon kër gi ndax bi mu jógee ci géej gi te fàttaliku ne daaru alimul xabi da ko da koo rafaatale woon sëñ daam mu sanc lu fii di këram tudde ko daaru salaam athaniya kon fii nu nekk kër Sëñ Tuubaa la moom 1903 bi muy dem gànnaar fii la jógee ci barab bii nu nekk gis ngeen jumaa ji nga xam ne la jullee woon ko ba ni ko sëñ Maamoor beesalaate ba ni ngeen ko gis noonu kon barab lii la boo xam ne fii la sëñ Tuubaa sampoon daara ji di joon fi sëñ daa Abdourahmane Lo kon daa mel ni sëñ Moussa dafa dafa dafa dafa dafa dafa euh, dekkliwaat euh, bi rek mu gën a tàkk ci lu dëkk gëpp jamono mu tudde ko El teg ko fii muy tasaaroo ci réew mi fépp penkook sow ak fenn fu nekk daara yi àgg na fa ba nga xam ne ay junni junni ci téeméeri téeméeri jàngalekat ñoo nekk di jàng ci école bi ak di ci jàngale yàlla def nag bi nga xam ne woote na wooteem boobu ñëpp wuy ko ci waa réew mi waaye nag waa bitim réew wuy si ko Égypte muy réew muy xam ci xam-xam wuy si ko 1974 75 yebal fi ay jàngalekat ba gis ngeen jàngalekat yi ba nëgëni si ñu ngi fi ñëw at mu nekk ay jàngalekat ñëw fi di jàngaleel sëñ bi bu école tëjee ñu delluwaat kazalika tamit Mauritanie taxaw nañ ci wet googu ba yónnee woon añ sëñ bi ay jàngalekat yoo xam ne ñi ngi ñëw ñoom itam reen ji nag ñëwaguñ waaye ñu ngi ñëw di jàngale di jàppale sëñ ci liggéey boobu boole ñi nga xam ne nag ñoom sëñ bee leen formé loon boppam yaraloo leen boppam ñu jàngee fi ku mel ne man ak ñu baree bari nga xam ne ay téeméeri téeméer lañ yoo xam ne ñoo jàngee fii ci daara ji dellusiwaat ñëwaat ci daara ji laxasaayu di liggéey si amatulah kon dafa mel ne sëñ Murtala jihaad ji mu def mooy jihaad ji sëñ te wax ne inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhimmin shahidu kon jihaad yi xam-xam jooju moom la sëñ Murtala def nga xam ne la génn ci liggéey loo xam ne mëntatu nëbbu ñëpp xam nañ ko génn na tasaaru na ci réew mi waaye génn bitim réew ndax yëmut ci lool rek waaye daal gisaat na bitim réew muy Amérique wala Italie sañ jiile xam nga li may wax wala Espagne wala fu mën di doon gis na ne daara yi dafa war a am jeexit mu daal sos lu ñuy wax këri Sëriñ Tuubaa wala kër yi lislaam tuddee ko centre islamique yoo xam ne moom itam day dox dox yi nii nga xam ne jàngalekat dana fa nekk imaam dana fa nekk doomi réew ma fa nekk te dugg ci lislaam bëgg seen i doom jàng fa dañ fa mën a jàng doomi taaliba ya fa nekk tamit dañ fa seen i doom dañ fa mën a jàng a yaru Amérique noonu la ko tasaaree kër Sëriñ Tuubaa yi kër lislaam yi fenn fu nekk tasaaroo na kon loolu lëggéeyu Cheikh Mourtada la boo xam ne rëy na li muy tegtal rek mooy jihaad ji Sëriñ Tuubaa doon jihaad yi muy xam-xam moom la ñëw ne waaw amu ci xej ji nag amu ci seen jullit yëpp la ca la fi woo fii ñëpp fi nekk mboolem tarixa yaa ngi fi mboolem jullit yaa ngi fi yàlla defit tamit mu am tawfiix moom suñu motulaa mën a boot ñëpp mën a moomu fi ñëpp am na fii ci ecole bi muy Azhar ak école yëpp daayira boo xam ne tijaana ngi ci layeena ngi ci murite ngi ci loolu ci suñu motulaa rek lañ ko mos a gisee waaw waa ansa muy ansaaru diin al islaami kon loolu tamit jéego bu rëy rëy rëy rëy fi ñu toll nii tembe rek boo demee ci état bi muy école primaire yeeg CM yeeg lycée yeeg da nga fay fekk ay professeurs yoo xam ne li ci ëpp ci école yi azar gii lañ génn kon loolu kenn mënu koo fay imaam yeeg fenn lu nekk lu baax lu nekk ak lu ñuy liggéey lislaam rek boo seetee ña koy taxaw boo leen làmbee ñu génn azar wala ku génn azar formé leen euh, sëñ Maamar mi nga xam ne moo taxaw taxawaayam tey laxasaayu mu tegoon tànkam bi mu nu bàyyee moom sëñ Mourtala 2004 ba nëgëni sëñ Mourtala Cheikh Mamor noppaluwut àndukiwut toogut waaye lépp lu mu am ak lépp lu mu xam mi ngi koy def ci daara yi ba daara yi yokk na lool ay ay ay ay fukki fukki daara yokk na fi ay junniy junniy élèves yokk nañ fi am nañ fi jéego boo xam ne muy jéego bi université bi nga xam ne moom la samp tam tàmbalee ko ca Ndakaaru ñu ba ñëw fii ci Ndaam ngi romb ngeen ko noonu jël ngeen ko incha allah taala xam naa ne balaa niir bu ndiir bu néew dana tàmbali fag bi muy fag islamique boo xam ne lu sëñ Tuubaa waxoon waxoon sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso bindoon ko ne sëñ bi muy bàyyi bi mu fi bi muy jógee ci àdduna ba yu fi yittee àdduna lu dul xam barabu xam-xam boo xam ne ñëpp danañ fi jàng si ak dem Màkka ak jumaam ju ji daa mel ne ñett yooyu yëpp yàlla subhaanahu wa taala def na bu mujj bi nag muy xam-xam bi ak jumaa jàkk boo xam ne ñëpp danañ fa daje muy jàngukaay bi samp nañ ko insha allah taala ñaanu yàlla yeggale ko te ñu ànd ko sëñ Maamoor lislaam bépp ànd ko moom bu tuddee université Cheikh Ahmadou Bamba bootal ko nag ay centre universitaire la ko tuddee sax muy excellence formation nga xam ne état bi nangu na ko ñi fa génne lañ war a am la ñuy am diplôme bi nga xam ne moom la am état bi nangu ko mën koo jëflanteeg moom loolu tamit jéegu bu rëy la boo xam ne Euh, yàlla subhaanahu wa moom la ko dencaloon suñ mutulaa euh, fu ne tasaar na fee ko li lu ne def na ko waaye daa bàyyi loon cër boobu nag sëñ Maamoor xam ne jamono dana dikk tam bàyyi ko liggéey bi lu liggéey bi laaj dana ko def kon ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala ko euh, dëgëral ko yeggalee ndamam sëñ mutulaa ne nga xamee liggéeyam bépp lislaam la woon dafa tolloog nag lii daa doonoon waaram ba mu gën cee siiwee waaye lépp lu islaam rek bëgg-bëggam la woon da ca daan xëy di ci dox ñu nekkoon ci wàllu jàngale ne la nekkoon ci tabax yi tabax jàkk ak dimbale nit ñi ak tasaare lislaam yaakaar naa loolu mooy sababu tukki mu daan def ci bitim réew di dem Italie dem France di dem Amérique lu ci nekk xam na liggéeyam sëñ Tuubaa bi dafa war a yaatu dafa war a àgg fépp te moom la moom la yàlla def. njabootu sëñ Tuubaa gi ki manoon déplacement yooyu di dem béréb yooyu di ko tasaare yaakaar nañ ne loolu am na résultat yoo xam ne ñëpp seetlu nañ ko tey ndax loolu itam li ko waraloon am na liggéey bi dafa war naa am lu koy jàppale moo tax mu sosoon ay ay yeneen yeneen yeneen ngir mën a jàppale liggéey bi mën jëm kanam ci loolu la sose woon wàllu mbay mu ci doon ci yëngutu yëngutu ci wàllu boulangerie doon yëngatu itam ci wàllu transport ñu koy waxee la rek transport bi ñu bari bu ñu koy dégg mën nañ ne nii mu amee moo ko ubbi waaye bokk ci woon ak ni ñuy xalaat ndax jamono yi fi nekk biiru maanaam li mu kaar yi fi nekkoon bariwul woon wante li ci daan liggéey ëppoon na man moom kaar yi boo koy xool ndax lu mot lu ëpp ñaar kaar nga def ñaar téeméeri nit ñu cee liggéey kooku yaakaar na ne bu bon si sox ko te yemul woon ci jël ci ay nit dañu ci liggéey waaye daan fay ay imam ay imam yoo xam ne dañu leen daan amal ay ubbi woon fa buntu ku am aajo ci wàllu ordinance wala ndimbal boo demee ci bureau bu nekkoon Dakar boo demee boobu boo tàllalee sa loolu jàppale ci loolu kon moom mel na ne dafa doon ubbil nit ñi bañ xam bañ da leen ubbil nit ñi buntu boo xam ne war nañ koo yëngutoo def te jaaruñ ci woon waaye moom def ko woon itam ngir bénéfice bi ko waxee kon loolu itam mën nañ bàyyi xel bu baax a baax. baax na loolu ci ñun tam ñu wax leen ñenn ci jàmbaar yi nga xam te ne yëg nañ suñu Mourtada li muy def xam nañ ko xam nañ loolu bu baax xam nañ li mu jëriñ ci réew mi ba ñu jóg ngir jàpp ci loolu. ku demee na sëñ Cheikh Cheikh Mbacke di pro jàmbaar joo xam te nii li mu def ci liggéey bi xëy na bu ko ñu bari gisee roy ko liggéey bi dana jëm kanam fa ñu bëgg màggam dana fa àgg am na tam yenn école yoo xam te ne nii noonu la ñu mel waa dëkk ba ñoo takku seet seen man-man def seen pexe ba tabax école yi ba mu nekk ay étage fu demee ne fu demee ne Kébémer fu demee ne Colom Fall fu demee ne Jiwaalo ak tam yenn taalibe yi nekk bitim réew mbokk yi nekk Italie am nañ rôle bu am solo bu ñu suwee ci liggéey bi fii ci Daaru Salaam ndaam rek pétard bu mag bële mu étage ko dafa classé bërëb ak i bureau ak i wanag ñoom ñoo ko fi def kon loolu itam dara ñoo sant baax a baax si yeneen mbokk tam yoo xam ne ba tey Italie la nekk def nañu mel noonu fa la ci ndar dama fay classe yu am solo ba na nga cee jàng alors dama ne siin Taïwan ak euh, ku dama ne sëñ ma dëkke ñan moom nañ ci liggéey baax a baax xam naa di ñaax rek di soññ waat waajuru xale yi nga xam te ne nii ñu ngi ñu ngi liggéey yàlla may leen wërsëg bàyyi xel daara ji roy ci fu demee na Kébémer roy ci fu demee na Jiwaalo roy ci fu demee na tam colom faal ndax andi sa biir dëkk samp la fa jàngu nga def ci lu mel noonu am na solo lool kon ñoo ngi soññ tam waajur xale yi di ñaan tam ñu gis lu baax lu mel nii ñu bàyyi ko xel def seen loxo ndax kat lu mel ni loo ci def lu nekk yow la fa nekk waxtu bu nekk ngay dund mu lay jariñ nga jóge fu mu lay jariñ kon loolu sëñ ji lu am solo la euh, waajur xale yi nekk biir ndaam tam ñu ngi góorgóorlu def ay pexe seet ñu jàppe ci liggéey bi am na tam ay benn benn nit yeneen ku demel sëñ Fallou Mané am na fii terrain bu mu tabax ba mu raate mu jël ko jox sëriñ bi fii tam ñoo koy modifié ay classes ba yaakaar nañu ren ji gannaaw maggal des na ko ubbi incha allah wala bala ñu màggal kooku tam a sant la jumaa ji yi si daam tam kooku moo ko defaraat nii mu sëñ Fallou Malick Mbacke waaw dëpp ngi nii xale yi fii def seen bac bac arab boo état moo koy organisé bu ñu paree ñu orienté leen fi ñu orienté seen morom yi nga xam ne ñoom loolu jéego yom sol boo ne état bi état bi def na ko ndaam ngi sax ñuy wax centre la centre d'excellence daaw ak ñun ñëpp def nañ fi def nañ fi examen loolu tam sëñ Mor tam dox na ci jéeg yu am solo fexe ba coordonné ak état bi ba ñu def loolu reconnaître bag bi nga xam te ne nii moom la bac arabe bi euh, état bi day organisé loolu tam jéegu bu am solo la euh, tey itam am na débouchement ndax xam naa sëñ Ahmed waxoon na ci waaye université yi ñu taxawal mu université Ahmed Bamba am branche Dakar am ko Bambey am ko fii ci Touba fas yéene ko am tarak feneen débouchement la pour tam comme sa bag ci réew mi bagu arab war a mën a ñëw dugg foofu àggale si njàng ndax la nga daa wuti bitim réew daal am na fi léegi li des rek mooy léegi yàlla mottali yéene yi yéen itam yàlla na yàlla fay leen waaw ndax lii lu am solo la tas liggéey bi ba ñëpp mën koo xam mën koo gis mën cee jàpp li ma ci yokk sa njiit nag xam nga dañoo baaxoowul déplacement dem nit ki di ko tàllal loxo nit ki daa mooy parce que am xoo am yëge nga am gis liggéey bi mu ñëw jàpp dëkk bi am na nay terrain ñu war a tabax bu classe ñu war a àggale gis nga ndaam gi classe yi mi ngi bari bi bëgg dee nit ñi te loolu nag lépp mënuñu ko noonu ndax suñ loxo jotul suñ gannaaw te liggéey dafa bëri waaye nag ku ñëw jàpp daal yàlla nga sa borom sa bopp nga jàppale taalibe nga jàppale ndax ësërkat mën nañu wax ne mooy branche bi yor xam-xam ci wàllu yoonu murit waaw sosu dëpp 75 ba léegi si 74 75 ba léegi si àgg ci ay junni junni junni élèves loolu sëñ bi da ko defoon ngir islam waaye ngir murid yi ngir ñëpp la woon.